donc nous ñëw fii ci appel bi euh, wuy ji suñu euh, notre doyen je veux euh, je veux dire notre mentor en politique mooy le doyen Birakan Ndiaye mi nga xam ne moom mooy taxawu au niveau de la communauté. de jachelam bon vraiment ni ñu gisee xeexoo bi c'est comme d'habitude hein parce que ñëw nañ fii gis fii këri diina yëpp murit yeeg tijaan yeeg et cetera ñëpp a donc pour wane ni HLM ben ben bopp la lu waay xewle boo invité sa morom wuy donc ñu ngi koy ñaanal yàlla euh, lii muy organiser chaque année fi ci këram suñu borom euh jappal lako bopam ko wërsëg koy defee chaque année and ak sutura ak wér ak euh, xewlu yu bare bare ci njabootam inshallah allahu rabbi maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp je suis accompagné avec le maire des Jachlem le secrétaire municipal euh, madame Binta Sarr chargée de la communication et madame le maire euh, Sow donc maa ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp salaamaaleykum wa rahmatullah ku ci nekk sa tur sa sant euh, di kontaan tey si appel bi muy 140eem troisième bi euh, ci kontaan bu baax si appel bi di fekk si Biraka Ndiaye di ko nuyu bu baax moom ak jabaram Mami Ndiaye euh, ak ñem fekk fi ñëpp daal maanaam chaque année fii la ñuy daal macha allah ñu fi ñëw na fekk nañ fi ñëpp ñëpp en tant que sunu frère ñëw na di Samba Ndiaye. di euh, sunu monsieur le maire ñëw fekk si magam ñëw fi en tant que maire waaw ñëw fi en tant que maire ñëw en tant que ku ñëw seet si frère am ñëw appel si moo tax tey mu jógee HLM ñëw ànd ak délégation bi yëpp macha allah ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di kontaan trop si appel bi merci beaucoup. allah comme d'habitude rek Birame moom dafa nekk sunu lépp wax dëgg yàlla ne lu yàgg lu ne dëgg la donc bés bi bu jotee duñ ci mën a des ginnaaw benn yoon macha allah ñëpp a ngi fi koo gëj a gis rek ba heure après jour après boo ñëwee kër bi daal da nga ko fi fekk lépp rafet na nag macha allah lépp rafet na bés bi ndax naam bésu laayeen li la waaye mën nañ ne bésu Birakan Njaay la ñu ngi koy gërëm di ko sant di ñaanal ñëpp jàmm yàlla na yàlla def Sénégal jàmm defal ñëpp jàmm ci barke Rasulullah kontante lool ci bésu bu màgg bi di bésu appel ajibo daay lay bi maam Baye lay woote fii ci Yoff eh, di am mbégte wax dëgg yàlla di dajeek suñu ay mbokk ñoo xamante ne ñoo bokk deret ay xarit yu yàgg-yàgg ak it ñi nga xamante ne yàlla daf ñu booleeg ñoom ci ay responsabilité ñoom ñëpp ñu xëy nekk ay conseiller nekk ay agent au niveau de la commune de HLM waxtu yëg yàlla ñëw yendoo at ñun bokk ñun bés bi def kër gi seen dal wax dëgg yàlla te te te te du tey rek la jëkkee ay ati ati ati ati ngi ah, noonu lañ fay noonu lañ koy doxale donc dama dama ci am am ci sant yàlla te di ñaan yàlla aussi lépp loo xamante ne xewal la ci bés Mame Baye Laye bi yàlla nañ ko yàlla boole ñun ñëpp mu nekk yiw ak njariñ ci ñun te niñ ko waxee rek ci ci thème bi nga xamante ne moom la ñuy wax ren muy muy jëm ci la paix ak le développement yal nañu ko yàlla sam borom bi may ci suñu bopp ci suñu biir njaboot defal ñu ko suñu ay kër defal ñu ko ci suñu ay gox defal ñu ko ci responsabilité yi ñu am def ko wasaare ko ci dëkk bi jàmm dal moo gën jàmm la doom aadama war ut mu nekk ci slaayam mu koy dund guddeeg bëccëg bu ko defee ci lay tale leneen lépp lu nga xamante ne engagement la ci moom mu koy def ndax dangay am jàmm loolooy tax ngay mën a xëy di liggéey da ngay am jàmm moo tax nga xëy di mën a assumer yeneen i responsabilité yore sax ay nawle gàll yore sax ay nawle jox donc wax dëgg yàlla kontaan nañ lool ci bés bi mu nekk bésu jàmm yàlla na nekk bés boo xamante ne yiwu yiwu Sénégal lay doon naka en tout cas maam Baye Laye alayhi salaam woote woon nga xamante ne yiw rek la e, li mu woote nekk laayeen yi ci la ñuy dund loolu la ñu xam ndax ci loolu lañ leen yar suñu lépp ci loolu la jëm mooy rek fexe baax fexe amal njariñ suñu ay askan amal njariñ suñu dëkk amal njariñ suñu suñuy kër loolu rek la donc loolu la ñu ci loolu la ñu yare ñu faj sa seeni ci yar suñu ay njaboot et di ñaan yàlla nekk na yar boobu law fépp ci Sénégal ndax loolu mooy intérêt wu dëkk Sénégal pour que lii nga xamante ne fi xala koy gis muy muy violence yàlla la bi teggul ñu ñu ñi ci ci ci paix violence ñi nekk ñi xam paix violence yàlla nañu yàlla sam bi donc may ñu am ndam ci kaw lépp loo xamante violence la ñu am jàmm ak salaam tal njaboot eh, tal suñu bopp incha allah ngeen jëf kontaan nañ lool eh, ñu aussi ci euh, site bi nga HLM bi ndax wax dëgg yàlla yéen ngi def liggéey bu mucc ayab ayib lépp lu laal HLM rek yéen a ngi koy couvrir yéen a ngi koy wane yéen a ngi koy fësal eh, nañ ñaan yàlla sam borom bi ak ndimbalu autorité yi yéen a gis maire mu ngi fii fi la yendu at ñun ñëpp at ay conseils yi at agents municipaux yi eh, kon seen site bi yàlla dem ba nekk télévision amal njëriñ HLM yëpp comme ni ngeen koy doxalee nii gërëm nañ leen sant lañ leen bu baax a baax a baax